waaw maa ngi tudd Yaram Ñing nekk ci ASC Cité Police nekk fekk samay naataangoo fii di leen nuyu yéen di leen ziyaara di leen dalal jàmm waaw di leen wax ni ASC bi ñu ngi ko fonde en 2006 déjà suñu quatorzième année moom moo nekk ni waaw le premier président s'appelait Guédia mhm. on a aussi des présidents yoo xamante ni jaar nañ fi comme Mamadou Fall des anciens jours aussi ñu ngi fi taxaw joueurs yi nga xam ni ñi ngi fi nekk ñi ngi compétir ba tey nii le capitaine euh, déjà il est là euh, Saliou waaw football nañu quart de finale ak euh, l'ASC Cité ba ñu def match nul dem tiiro bi ñoom ñu gañe ñu ci tiro bi mais bi ñu gagné football dafa am yoon ni mu amee yoon moom mooy ñun dañu dugal benn réserve ci benn joueur boo xamante ni nii dafa competir championnat Mbour Petite Côte déjà dañ ko ajoon aussi ci Koungheul dañ ko aj Koungheul PV ba mi ngi génnoon euh, le 27 septembre ñu porté ko fii ensuite euh, porté bi ñu ko porté porté nañ ko ci fraude sur identité encore parce que ay photo la yoo xamante ne ak ci ñaari date aussi porté nañ ko ci loolu def nañ évocation aussi bi gars yi demee aussi ñëw nañ neñu dañu lever suspension bi nga xam ne dañ ko suspendre à Koungheul le 27 septembre 2019 bi le PV boobu génn bi waa zone yi demee bi ñëwee ñu ne ñu dañu lever suspension boobu mu xaw nu jaaxal tamit lever suspension boobu xaw na nu jaaxal ci même année bi purgégul dara ñu ne lever nañ suspension boobu bi nu ñëwee gars yi nag dañ nu daaneel ci loolu nañu ñàkk nañ ñun tamit dañu defaat benn appel yóbbu ko au niveau de l'ODCAV pour pour xaar ñu jox ñu vraiment gain de cause parce que fi ñu ko porté yëpp jour boobu xam nañ ni daal waruñoo mën a daanu waa sécurité pe cinq lañu ñoom ñoo nekk foofu bi nu ñëwee wax seeni wax ba pare ñëw nañu bon da ngeen a daanu ñun nag xam nañ ni fi ñu téye fu dëgër la bàyyi nañ leen fa ñoom ci ginnaaw dem nañ ca kaw ñi nga xam ne ñoom ñoo leen yilif ñu jébbal leen dossier yi pour. ni ñu ko formuler li ñu bind ñoom ci boppam ñun bi ñu bindee ba jox leen parce que li leen waar moom mooy dañ ne mais fan ngeen jaar ba bind li parce que ASC yu mag ngeen léegi déjà ñoom ci seen bopp ñoom seen bopp dafa am ay divergence zone ci seen bopp parce que cinq membres ñoom ñoo fa nekk déjà euh, président CQRP bi est-ce que je vais citer des noms Aboubacrine le président de CQRP Samba Sarr de l'ASC Kiosan Malick Lo de l'ASC Ndam Ahmed Thiam aussi da l'ASC Jekk Penc et Salim Diagne de l'ASC Bokk Jëf ñoom cinq ñoo fa nekk bi nu ñëwee bi ñu leen laajee tuuti dañ ne bon benn personne moom moo wax ni kii moom la yeneen kaat yi dañu wax déedéet ñoom ñoo xam lan moo tax ñu wax loolu mais ñun xam nañ ni photo yi benn la lu ñu mën a wax daal moom mooy dañuy xaar parce que dañoo jébbal ci ñi nga xam ne ñoom ñoo leen yilif xaar ñooñu bi ñu leen jébbalee suñu appel ñu leen di xaar ñoom ñu indi résultat PV. d' accord bon ci benn motif la ñu daaneel te ñun bi ñuy dugal d' ailleurs dañu dugal quatre motifs moom la ñu dugal ñoom bi ñu ñëwee dañ ñu wax ni sax dañ ñu wax ni sax ni euh, règlement bi nga xamante ni boo joué quatre matchs euh, d en waroo football nawetaan ñoom dañ ñu wax ni loolu dañ ko dindi mu tey xel trop parce que loolu deñul suñ ko waxee c' est faux ñun mënuñu nangu loolu parce que loolu moom mooy dem ba tey. Euh, sur tapis vert dafa am ci football dafa am ci football si vous vous rappelez bien defe naa boobu yàgg na y avait un joueur euh, de l'Algérie Mourad Kouraf dafa coppe woon carton rouge waa Algérie dugal ko c'était en 94 ñun bi ñu dugalee dañu jàll Sénégal moom moo jàll parce que affaire de dirigeant la Mawade était là dafa ñëw ñuy wax ñu ne eh dem leen ngeen toog Sénégal moom mooy qualifié effectivement noonu la demee. Real de Madrid c'est récent loolu dafa daanu donc nit ki li mu moom nañ ko ko jox sinon re loi waruñu ko woon teg parce que ñun ci loi lañ jaar réglement la ñu jaar def li ñu war a def te wóor nañu xel ni fi ñu teg suñu tànk dafa baax am na lu fi amoon aussi en 2014 ñu tolloo point ak l'ASC Bokku Jëf ak l'ASC Jamono bi ñu tolloo point ñun ñoo gën a baax goal mais bi nu ñëwee règlement bi ñu indil ñoom bi ñu teg dañ ne dañ koy def 3 à 3 ñu xool jamono moo dóor bokku jëf ñun dañu nii la bokku jëf dañu nii la jamono ñu ne donc ñun ñett ku ci gagné moom mooy dem ñu nangu mu jàll parce que ñoom ñoo wax ne loolu moo am mais bii nii nii ñu nekk 2019 ñun xam nañ ne fi ñu teg suñu tànk dafa wóor te képp ku xool bagage yi xool affaire yi li ñu dugal yëpp sincèrement da ngay xam ne dañu tegu ci yoon donc ñàkkal yeeg yooyu mën naa ñàkk parce que ñun ñoo bokk fii yëpp ñoo bokk suñu pikin ñoo bokk suñu commune dañuy gisante nañ ñu jox li moom ñu avancer parce que dañ ko mérité voilà. waaw maa ngi lancé ñoom ci seen bopp ñoom waasoon ci seen bopp ñu xoolaat seen bokk te xam ni dëgg moom moo njëkk te moom mooy mucc di lancé tamit Pikine yëpp ñëpp képp kuy suivre football waxuma pikin Sénégal képp kuy suivre football. nga xam ni lii ñuy wax nii yéen ñi ngi leen di ñaan ngeen jàllale ko partout ñu xam ni nii la demee benn joueur la boo xamante ni dafa fubal championnat dafa fubal Koungheul ñu aj ko fa suspendre ko PV bi génn deux ans lañ ko suspendre il s'appelle Baba Sow Mbour Petite Côte la nekk bu ngeen xoolee bagages yi di ngeen ko gis mun mënuñu gis boobu joueur te c'est pas la première fois mën naa la ci jox ay données yoo xamante ne ñun dañuy dund football dañuy dem fu nekk y a un ancien partout dans le pays daf fay dem di seetaani championnat pareil ko nu aussi waa ji def na ko en 2013 jàppo bu mbuur football fa def loolu rakkaaju ñoom ñoo leen porté rakkaaju bu mbuur mu daanu daara noonu la fay def man bon bëgguma ko mettre à en mal mais ci loi sax am na lu ko ci war a topp moom ci boppam moom Baba Sow donc nañ xamante ne teguwuñu ci yoon ñu jéem a teg nit ñu ci yoon ku ci frauder ñu ñu jox la li nga xamante ne moom nga yelloo ki ciy am gain de cause aussi ñu jox ko gain de di leen wax ne nañ jéem a tegu ci yoon dëgg moo njëkk moom mooy mujj bu nu ñàkkal ki war am parce que ëllëg dafa am aussi voilà. Mhm. merci. waa bon léegi comme euh, li ngeen bëggoon laaj lépp laaj ngeen ko gars yi aussi tontu nañ leen ci tontine bi gën a rafet donc yéen seen euh, télé bi Light TV ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci déplacement bi disponibilité bi et tout. ñu ngi leen di ñaanal bu baax vraiment télé bu nga xamante ni dafa nekk fii ci biir euh, Pikine di doxal loo xamante ni vraiment lii moom dama koy rafetlu parce que képp ku am jafe-jafe ngeen jël seen télé déplacé wu ñëw laaj ko lépp nu mu demee et ngeen laaj ko ci laajin bu rafet dañ leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal aussi télé bi yàlla na nekk euh, télé yi gën a kawe aussi ci Sénégal yàlla dund ba nekk foofu di leen ñaanal yow mi te micro bi Aliou ak seen yeneen euh, collègue yëpp daal ñu ngi leen di ñaanal bu baax a baax di ñaanal aussi suñu benn waay Lamine kamara koy sant di ko gërëm coach di ko ñaanal aussi merci beaucoup